maa ngi tudd Ndeye Ndiaye maa ngi dëkk Kastaw di liggéey Sodica. nekk di door rek xam nga jigéen moom bu bëggee lu baax rek bëgg a teral ay waajuram bëgg jàppale fameem nekk néew di doole faaw nga jaar door waar. restauration laa def waaye ba avant may def restauration jaar naa sama yaay doon ko dimbale si wàllum jaay ndekki bi doon def waaw soog a ñëw restaurant kenn mënut a toog ci kër léegi. ndax moom dëkk métti na métti goo xamante ne mënoo toog ci kër da tax jigéen ñi faaw ñu yëngu léegi métti na trop sax boo ko natt weesu na ko ndax boo yeewu 5 heures du matin préparé say doom pour ñu jàngi ji war a xëy def marché ñëw fii 8 heures balaa ngay wàcc ay 19 wala 20 heures loolu moom métti na da nga yor njaboot te doom bi guddi ba guddi nga leen di gis dimanche dimanche laay nekk sama kër loolu tax yu bëri bëgg ma see bokk fii day fees des fois waaye nit ku ne sa digganteeg yàlla rek waaw des fois gis ku lekk ba suur rocceeku dem yoonam doo ci mën dara des fois client nga gis ku naqari deret bu lay dépassé te doo ci mën dara xam nga sa liggéey moo la ko laaj bu dul woon sa liggéey du la dépassé sañu leen dagee ci mbedd mu naan la lii wala laa liggéey bi moo ko laaj. damay ma jéem leen a gérer noonu laay def. avant corona bi macha allah ñu ngi doon gis suñu bopp bu baax mais corona bi nii dem na ba sa liggéey léppay wàññeeku léegi. waaw boo daan togg ay e ñaani mbana léegi benn mbana ngay togg te balaa mu jeex yàlla xam corona bi moo téye liggéey bi yëpp fi mu toll metti na torop torop torop sax ndax am na borom kër yoo xam ne ba léegi ñemewuñ jënd restaurant parce que pandémie bee tax ñu bëri dañuy teel a wàcc dañ doon wàcc 17 heures mais léegi dañuy wàcc 15 heures pandémie moo ko waral waaw restaurant moom bu njëkk ba doxal mais pandémie bi yaa pandémie yëpp a taxaw amul lu dox lépp a taxaw fi mu des fois nooy def boo demee ba sa liggéey nga xam ne taxaw na yaa ngi bëgg a taxaw te am nga banque boo doon jëfalanteel faaw des fois nga def frais lépp dugal yenn saa yi nit ñi sa client yi jàppale si benn côté loolu doon nga fi nekk. mais nooy nii nii rek wax dëgg yàlla yaay bi gisatuñ suñu bopp amatul dara fi mu toll nii. ah jigéen moom dafa war a tëddee njaaxaanaay mën a dimbale société bi mën a yoon ñëpp jigéen daal mooy ndey mooy yaay mooy lépp. xanaa gën a góor góor gën daan seen doole. aduna bi liggey doo nga fi am lu dul liggey gisuma ko gor na gor gor japp sen jaboot dan sen dole mo fi am mom fo fek borom bitu mu bag bu nek bu sañoon magasin ci wetam la waaw ma ngi bëgg magasin bu mag am restaurant bu ngand yo sama employé lool la bëgg sama rêve dal lool la ndax li dem sama bonheur la dal damay liggey ta yalla ta xam nga rek gaay fi nek dama leni jappale ñu may jàppale mënuma toog ñaan na yalla dem ba am ko mo inshallah yàlla mën na lépp দেশ